parce que dara manqué wul. parce dara ba ay mboqam. waaw loolu am na dara bàyyi ay doomu baayam. ay nit. lu ay mboqam. yàlla na yàlla jàppale jàppale sëriñ bi. amiin waay amiin waay ca kaw ci kanam. ak kanam. barke Rasulullah sama heure ay une heure laa yeew waaye nag sama yaay ñoo la bëgg sa loolu ca kaw ba léegi di ma yee sa ba léegi loolu am na te ku ne xam na ni sa ko wala la déedéet waaye nag yaa ngi def lu baax ah ñu waxal la ko dama bëgg ngay jege si nii looloy dëgg ñu waxal ci ak jaga bu ko def bu ko wax la bëgg di jàppale Serigne Diouf doomu yaay Serigne Diouf barke Rasulullah Saloum Saloum baa ngi nii ala waaw ala Jongo moom moom waa asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di siyaar te di leen jox seen wàccuwaay yàlla mi dara tëwul ñëwati na nan daan defati ku gis jataay bi xam ni am na barab yu bari yu nuy xaar gannaaw buñ bàyyi koo Pikine mbokk yi nangeen xam ni tey ñoo ngi fii ci Tilène medina fekk fi sunuy bokk Cheikh Gadiaga ànd ak ay bokkam fas yéene leen dimbali ànd ko kan le président Serigne Mboup monsieur le maire Serigne Mboup la ma waxoon Pikine nag lay baamuwaat rek sëriñ Mboup ci réew mi la juddoo fi la yaroo fi la màggee yàlla mi dara bi mu juddoo li doomi soxna yi xam xam na ko jàngal nan ko alxuraan jàngal nan ko mu wóolu Cheikh gajaga te waru ko ni ko nag liggéey bi ma fas yéenee liggéey dama ko fas yéenee tàmbalee ci sa bokki lawbe ndax nit bu lay jàppalee da ngay jiite ci ay bokkam seex ni bala maa dem fenn gannaaw bu nu jaaree pikin jaar Sereps Géejawaay buñ fi jógee léegi war a dem ci ay pàkk yoo xam ne nii jataay yu bari ñu ñuy xaar seex fas yéenee yëkkati social bi nga xam ni ci lay jàppale doomu adama yi jox leen ko seex gàcce ngalaama li nga xam rek nga def seex li ma waxoon rek ngeen may ma tuuti déglu ni nga bindoo noonu rek lan lay tëggee yow paaka ñaari boor nga fetalu ñaari ngémmiñ nga bu la neexee jam ci bii bu la neexee jam ci bii bi nga doonee tout tànk ñi ma ko waxee ci sëriñ buub laa koy waxee ci yow sa way juroo bam la juree dalaa yar jàngal la yóbbu na kër sëriñ Mbàkke Madina ñu tuddale la sëriñ Mbàkke Madina seex yow doo fi doxandeem ci réew mi nga fekk si nag sama jigéen boo xam ni maag moom démb lan tey soog a ñëw magam ju baax ja moo ma yar muy soxna Kumba ca këram laa newoon booba laa tàmbali njàng mi nekk ci daara ji waaye bu heure añ jotee ci Kumba laay dem añi ndumbe mi yàq ci dara nekk magam ju jigéen ji muy yar ko muy nitu teraanga ñu yaroo ca guy faatu may ga pikin muy koo xam ne nii social rek lay def. seex li ma wax rek dafa am barab yu bari yoo xam ne dañ xaar waaye na ngeen xam ni kii wër di wax ak kii liggéey bokkunu kii président Serigne Mboup monsieur le maire Serigne Mboup moo moo la wóolu bim la wóoloo jox la ay moyen ni la wëral bokki lawbe te yow kat fi nga demagum yëpp say bokku lañ. tey bu loon lim li nga bokk ak ñii toog koo ci dul magam nijaayam nga kii sa bàjjen la kii sa yaay la sa maam a ngi nii toog kon yow ci bokk gi rek nga tàmbalee li nga tàmbalee. liñ lay ñaanal nag mooy lii nga xam ne nii ci leen jëm bu yàggul dara ñu koy séentu nga xam ne président chambre de métier national bi nga xam ni Serigne Mboup daf cee fas yéenee jëm ngir jongante ci ngeen ñaan. ci daaley Moustapha alayhi salaatu wa sunu borom jox ko ci ndam kii raam di la jox nag mani kii raam di la jox bu amee dalay bokk ni nga bindoo rek noonu nga jëfe noo ngi leen di siyaar te di leen jox wàccuwaay jarul nuy guddal ndax buñ fi jógee am na barab yeneen yu nuy xaar te ca waxtu ban départ ban départ dafa yàgg di jaar ci pàkk yi kenn ku ci nekk fas yéene ndimbal lii nga xam ne nii moom la Seex Gajaga indi muy lan li nga xam ne nii kër gum am macha allah muy ceeb bu bari bi mu indee ceeb tef na ca loo xam ni mooy dem marché muy ay koppar yu bari Seex fas yéene ko ànd séddale ko bokki lawbe kenn ku ci ne jël ci wàllam ndax réew mi président Macky sàll mi nga xam ne nii mooy njiitu réew mi. dafa wax ni nañ dimbalante sunu biir nañ def social ku tane nit na ko dimbali loolu moo sabab alaaji seex ñëw fii ci Medina ci Tilleen fas ni indi ndimbalam ànd koog nag magam ju baax ja di président Serigne Mbuub lu monsieur monsieur le maire Serigne Mbuub nan ko ñaanal nag sunu borom jox ko ay ndombal tànk ndax lii nuy séntu bu ci jotee dana jàppale lawbe yi am déet seex su ko defee bala noo jox seex dañuy jox rek ñaari nit ndax ñi ni xaar danoo xaw a bari te ña nga toog dinu xaar dañuy jox kenn ci jigéen ñi mu waxal jigéen ñi nu jox imaam mu yëkkati kàddu ndax imaam bu waxee dañuy jox seex mu tëj kon dañuy tànn kenn ci jigéen ñi mu waxal jigéen ñi wax li ngeen xalaat ci social bii nga xam ne moom lañ leen indil Cheikh Gadiaga indi ko jëlee ko ci magam président Serigne Mboup monsieur le maire Serigne Mboup Serigne dëkk Kaolack di koo xam ne mi ngi jàppale doomu aadama yi su ko defee soxna si aasi soxna aasi Adja aasi yow la ñuy jox kàddu gi nga wax dara mhm. ci lii fi ñëw ak sunu jàmbaar ji nga xam ni mooy seex Cheikh Gadiaga Cheikh Gadiaga yaa ko def yaa ko def Cheikh yaay docteur ci biir famille ñii nga pikiir ñii nga joxi ñii nga enterré yaay docteur ci biir famille ci biir ñii nga pikiir ñii nga joxi ñii nga enterré yaay docteur ci biir famille ah waaw sama jigéenu waa Rue 27 jigéenu waa jàppoo ñu ngi leen di nuyu waa Médina macha sama xaali xii na ndax lii dafa neex nit a ngi woote social bu la woowee ndax dëkkandoo bi nga woo kii woote nag dafa jar a wuyu ndax Cheikh Gadiaga am na ñoo xam ne boo jaaroon ci ñoom kenn du fi toog donte ngay maye ceeb maye diwlin du ñu jógloo kenn waaye dangaa jaar fi nga war a jaar ndax Ndoumbé mi macha allah nga jaar ci kër gi nga xam ne ku fi jaar macha allah taq civilisé am maanaa doon ay noble Alaaji Ousmane Sow di maam ñu dëkk fii dara ñaawul yàquñu fi dara Cheikh Gadiaga ñëw nga fi nga war a ñëw jaar nga fi nga war a jaar ànd nga ki nga war a àndal bu paree ma gestu ci jigéen ñi. macha allah numbe kontaan na ci yéen ndax woote rek gis say mbokk ñu teew kooku da ngay sant yàlla. yal na leen yàlla defal jàmm ndax ku ne xam na heure bii ah Cheikh Gadiaga xam nga ne heure bii jigéen ñi dañuy baaral dañuy togg dañuy fobeere dañuy raxas waaye nag li nga woote kooko woo mu ñëw ndax Cheikh Gadiaga fii réew mi toll ah ku ne xam na ni dëkk bi mel ceeb seer na diwlin seer na jimbo sax kenn waxaale wu ko Cheikh Gadiaga macha allah sama xaalis xii na noobal ngeen mën a doon ndax màgget macha allah saa bu ñu toogee di tooñante Cheikh Gadiaga lay wax. yaay docteur ci biir famille mais sama yaay jiwoy bi wax Gadiaga Lawbe raqu màgget raqu ndumbe yal na la yàlla defal jàmm. social bii nga woote nag ngeen di yootu fii nu mu tudd chambre de commerce barki yonent bi da ngeen di jàmm da leen koy jox ndax ku tere jigéen yàlla teral la. ku sagal sa yaay sagal nga jigéen ku bëgg sa doom bëgg nga jigéen yal na la yàlla dafa jàmm tasu gay yàqu ci dara fii nag ñuy wax nag macha allah Cheikh sëriñ bu lii muy yóotu barki yonent bi da koy am bu dee raay nañu kaaba ga jigéen gu fi toog rek macha allah ci barki yonent bi ñaanal leen suñu waa ji suñu doom suñu sët suñu xarit yàlla may ko ko ki muy jàppale yàlla may ko ndam te yàlla boo ci gis dara loo ci ragal sëriñ bu yàlla na ko am. bu ko amee yal na ko jig te yal na ko fekk te yàlla boo ci am benn ndok-ndok xanaa numbe neex na yal na ci yàlla def jàmm jigéen ñi kontaan wax ji bu mu gudd Aziz sañu imaam kaay wax ah jërëjëf mbokk yi ñu may nu tuuti déglu rek dañuy bëgg a jox imaam ma ni ngeen may nu tuuti déglu danuy bëgg a jox kàddu gi imaam imaam nag bu jàkka ji nekkee nii imaam taxaw nii di wax ci lan social ci ndimbal yellu na ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ni aljamaatu rahma yéen jullit ñi nangeen dimbalante ci seen biir su fekkee ni imaam teewe na ndimbal lii seex gajaga indi jële ko ci magam di sëriñ mbuub imaam taxaw nii di imaamu jàkka ji lii yellu na war naa mën a ne nu teewlu imaam mu yëkkati ay kàddu bu noppee nu jox sëriñ Cheikh Gadiaga mu wax ak bokki taalibe yi. salaamaaleykum mbokki jullit yi maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant jigéen ak góor ci am Tidiane Naam Gadiaga Diouf laa sant maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di la sant jëf ji nga def nii jëf ju baax la ñëw si say mbokk andi sa teraanga di leen seet ngir mbir te loo gis rek am na lu ko waral kon boog li la tax a jóg mooy ba nga agsi ba fii ba ñu dajale mbooloo ñu toog nii yàlla na la ko yàlla jox ma jox incha allahu rabbi yàlla na la ko yàlla jox ñun nag suñu problème si jàkk ji leen na la rek te ku ñu ko defal incha allah li ngeen bëgg di ngeen ko am ku ñu defaral jàkk ji li ñu bëgg parce que jàkk ji jàkk ji màgget na bu fi fekkoon alaaji Ousmane bi nga xam ne moo ko def alaaji Ousmane bi nga xam ne moo tabax néeg bii bu ko fekkoon muy dund ba léegi kon waxatuñu ndax fii lépp lu fi dee moo ko rendi daanul xaar dara courant beeg ndox mi lépp moo ko daan fay comme que demam dafa jot rek yàlla woo ko mu ñëw kon boog ñu nii fi des war na nañoo mën a jóg xool ñi nga xam ne aussi ñu mel ni yéen mën ñoo jàppale si néeg bi defaru mu deful kon book kii daal ku ñu ko defara incha allah lépp li nga bëgg di yàlla dina ko jox incha allah rabbi kon boog nga wax ñu sa waay Cheikh euh, Cheikh Mbuub Sëriñ Mbuub ne ko ñun daal suñu problème fii waa jàkk ji jàkk ji daal la ñu bëgg laaju ñu xaalis laaju ñu dara ku ñëw defaral ñu rek ñu ne lii lii lii la ñu bëgg rek nga defaral defaral ñu rek la ñu bëgg parce que boo xoolee jàkk ji ni mu bindoo ñi fii jullisee ay doxandéem la ñu ci ëpp dañuy ñëw di ut si xaalis yóbbu seen dëkk moo tax mënuñoo investir dara fii du dëkk moo tax ñu mel ni yéen rek lañ doon seet waaw ñu mel ni yéen rek lañ doon seet comme que yàlla def na ni andi na leen ba ngeen ñëw man mooy li ñuy ñaan daal ngeen dimbali si néegu yàlla bu tedd bii rek fii la ñuy takkee sëy tudd imaam bi fii lay jóge ku génn àdduna imaam bi si jàkk ji lay jugee dem def li mu war a def jullee ko kon boog lii lu am solo la lu am solo la te kun fi ñaanalet yàlla nangu parce que néegu yàlla la dañu ne woon bu yàlla doon wàcc tey si àdduna si néegam yi lay dem du dem benn kër sëriñ si néegam yi rek lay jëm kon boog néegu yàlla ku ko defee rek yàlla dina taxaw say mbir kon ba yal leen yàlla jàppale yéen a xam li ngeen bëgg di ko yóotu yal leen ko yàlla jox yi daal la ñu amoon lu ñu doon wax daal nga baal ma salaam yal yàlla defal ndam. Cheikh dégg na jërëjëf mbokk yi waaye imaam imaam kaay boo waxee lu baax ba noppi léegi rek bin toogee maak Cheikh Gadiaga dafa xool jàkka ji xool kër gi ni ma sama baay Ousmane. jàmbaar la lu mel nii nga am ko ci dakaar xàll ci jàkk waaye nag du ma gën a gore mu ne ma alaaji est-ce que xam nga ni am naa xalaat ci kër gi ak ci jàkk ji moo ko wax ñun ñaar ñoo toog nii di wax mu ne ma lii nu jëm bu ma yàlla mayee ndam fa yéenee naa ñëw fii ci kër gi jàkka ji ak kër gi ma yeesalaat ko ndax kat sama baay Ousmane du ma gën a gore dafa naal dara bàyyi ko fi li mu naaloon ñun ay sëtam ak ay doomam ñoo ko war a yeggali kon imaam malay lay seereel ni la seex fàttewul kër gi fàttewul jàkka ji li nga waxit bàyyi na ci xel dégg na ko kilifaam gu ko yónni muy sëriñ mbuub moom daara yeeg alxuraan rek sëriñ mbuub bu laajte ñaar rek mooy yitteem fu dongo yi jànge xam ngeen ni bala ngaa taxawal jàkka danay taxawal daara ba noppi day xool fu daara yi jànge ba noppi mu defal daara yi faj leen yëkkati ay mbubu jox leen tabax nag jàkka nga xam ne ku jóge ci daara ji bu duggee ci jàkka ji day jiite na nga xam ni kon xelam ak xelu magam ji lépp xalaatam mi ngi ci kër gi ak jàkka ji su ko defee bala noo jox seex nu jox ndumbe mi waral coow li dajale leen fi mu wax ay kàddu teeru magam tatagal magam sànnanteeg moom ay kàddu ñu doo ko jox seex ndax barab yi ñuy xaar bari na te waxtu wi jigéen ñi heure bii ñi ngi ci kii yi waaye daal ñi leen di xamal ni national seex Gadiaga mi ngi koy wër tey suba lañ jóge daara bëgg na fépp fu lawbe nekk dana fa teg tànkam yóbbu fa koppar yóbbu fa ceeb dimbali leen kon soxna Ndumbe Tafadal Maskoura jërëjëf jërëjëf jërëjëf <laughs> ah sa bu ma loo jërëjëf jërëjëf kontaan naa ndaxte woote ñu wuy si la dafa metti te nit kenn du ko luyee mën ngaa luyee say seize mën a luyee le waaye nit kenn du ko luyee te ma moo wootee waa maintenant yëpp a génn sama mbokkaloo bi yëpp génn association yeeg tuur yeeg mbootaay ñëpp ñëw wuy si ma te démb la ma Cheikh woo ci guddi lii bu doon dañ ko programme ñaari fan kon fii kenn du fi xaj ndax Cheikh booyee boo wootee ñëpp génn yow boo wootee ñëpp wuy si la gajaga lawbeem ndoob yow da ngaa doon lii loo doon mu dëgër daawu rey sa baay papa gajagaay sa baay sàmm góor lay sa maam moom moo njëkk a politique ci lawbe kon yow boo politiquee da ngaa war a politique boo politique da ngaa war a politique ñu ngi gërëm nag sëriñ bu bu baax a baax naan ko jërëjëf nañ ko kontaan nañ si moom li muy yóotu yal na ko ko yàlla jottali te muy lu gën ci moom nga fekke lépp coow li coow li seex yow la seex ba nga demee social boobu xale nga. cheikh ba nga demee social boobu lu ndaw nga ñu duppee la sëriñ Mbàkke mad sëriñ Mbàkke sëñ cheikh Bombali bu sëñ Mbàkke Madina bu sëñ Modou Moustapha di sa wasi la baay sëñ sëñ Touba moo la taxawal sëñ cheikh Bombali moo la samp cheikh dangay dem kenn mënu laa téye nit du la téye ku ndaw du la téye nit du la téye say mbàkke mbàkke say maam say yaay say baay ñoo la samp ñoo la taxawal ca kaw ca kanam dangay dem kenn du la téye li nga yootu nag da ngeen ciy jot sëriñ boobu bu gis ñu bu taxawee gis ñu bu toogee gis ñu heure bu ñu woowee soxla ñu ñoo ngi ci ginnaawam tey ba suba suuf nag bu sutantee dañ kaa jal te yal na ngeen li ngeen di yóotu yal na ngeen si jot seex yaa jàppale sa néegu nday yaa jàppale sa néegu baay seex yaa ñu jàppale seex ñu duñ la woo téléphone ouverture ki koor korité événement bu am bu amul da ñuy orange ma ne di ñu vivre te doo ñu woon lañu wala ñu woo la xaaroo ñu woo la seex seex xaaroo ñu ñëw sa kër te sama yaay ja asugay mi ñu uuf uuf waa kër juma yi yàqu ci dara lépp moom la yaa ñu jàppale yéen la yàlla jàppale yaa ñu taxaw yéen la yàlla taxaw ba ngay rayal sa papa nag Touba boobu xale bu ndaw nga say doomu baay bu ñu xewlee nga teew bu ñu amee nax naqar nga teew bu ñu amee bànneex nga teew yal na la yàlla jàppale jàppale Serigne Mbouch li fi ngay dem na dafa bari dangay ngay yóbbu social ci Lawbe yëpp moo tax wax ji dugg day gàtt mais gërëm naa ñëpp merewu ma kenn sant naa ñëpp yal seen jàmm yàgg. jërëjëf. ndumbe kàddu yi kàddu yi kàddu yi maras na koo dégg yow boo ma gisee ma ànd ak seex doo jommi ndax man ku ma xam-xam ni ku ma xam-xam ni saa ma téye micro yonent bi rek laa ciy tagg waaye seex day kenn ci man jàpp ma te sëñ Tuubaa tax loolu nga wax nii bi muy def social booba amagul vingt ans lu mu am dugal ko kër sëriñ Mbàkke Madina am ngërëmal juróom am ngërëmal sëriñam kon dañuy daal di jox seex kàddu gi mu yëkkate ay kàddu sànnante ko gi yéen wax ci social bii nga xam ni moom la ko magam jox mu fas yéene koo indi séddale leen ko kon seex tafadal maskura bismillahi rahmaani rahim jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah wax bi du gudd ndax li ma war a wax yépp sama mbokk yu baax yi wax nañ ko boo ñëwee ci kër da ngay jaar ci buntu kër gi ñu ngi nuyu imaamu jàkk ji ñu ngi nuyu it sama bàjjen yeeg sama maam yi ak ñi ma fi fekk ñëpp di nuyu numbe ak màgget ku lim juum di wax ni li wolof wax ni gaynde buy naan ci déeg mbott yi ngoox duñ ko tee naan yaakaar naa ni famille lawbe boo ci bokkee danga nga war a fier ci ni lawbe nga bu fekkente ni mag nga dangay xam sa bopp waaye doo nekk mag di sëkk ak ñoo xam ni yaag seen baay la woon kon Ablaye Sow dañ koy wax na dal na ànd ak teey na xam ni àdduna luy jàll la waaye jongante fa ak ree la jarul jël ay say doom say nervi ñu yore arme di dem ay kër nit loolu ku ko def yoon dana la topp fii may waxee ak ñow convoqué na leen ña nga ca gendarmerie ndax Cheikh dafa nuyoo rek muy rëppi rëppee ka tëb mais chambre de commerce bu dakaar incha allahu rabi dana fa jóge ndax mandaam mandaam dafa jot mu war a dem mag bu war a dem la na xam ni dafa war a dem. te président de la république su ko joxee mu jiite éco conseil économique social mu nekk fa am fa nomba tànk pour di jàppale askanu lawbe la waaye jox ko conseil économique social pour mu war a jàppale askanu lawbe te askanu lawbe danoo soxla njàppal te jàppalewul leen kon alaaji sëriñ Mbuub bi nga xamante ni. moom mooy joxe ndimbal li joxe ay tonu ceeb ak i koppar pour ñu tas ko ci mbokk yi ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm képp koo xamante ni am nga registre de commerce nañu waaj pour dem chambre de commerce nationale ñu jël ko teg ko ci loxo alaaji sëriñ bu ndax moom moo ko yeyoo bu fekkente ni mbokk nga te jàppalewoo ñi nga bokkal loolu gàcce la ndax ku mel ni moom tey warul woon seetaan jàkk ju mel nii di néegu yàlla te réfractionné wu ko defaraat ko kon ñu ngi leen di wax rek alaaji sëñ Mbuub dinañ ko ko jottali ndax alaaji Ousmane Sow dafa am symbole boo xam ni da koo symboliser ci askanu lawbe bu fekkente ne lawbe nga sant sow am pénc mu toll nii ci Medina war nga mën a defaraat jàkka ji war nga mën a jàppalewaat say mbokk waaye fépp foo xamante ni dem nañu fa rek mbokk yi dañuy révolté wu di wax ci ni mu leen seetaane kon géej am na ndox ta taw taxul ñi ngi sant ñi fi teew ñëpp di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm ak xéewal di wax ni it dëkk bi ñu nekk muy Sénégal du dëkk bàyyu kenn dëkk la boo xamante ni santul saw santul gajaga santul jóob santul njaay ñëpp a ko bokk lu ñëpp bokk nag loo ca am bu ko xeeb kon ñi ngi sant alaaji sëriñ Mbuub di ko gërëm di ko ñaanal yàlla lépp loo xamante ni bëgg na ko yàlla ko yàlla defal li nga xamante ni nag moom la ñu indi ci wàllu ndimbal dinañ ko teg ci loxo numbe bu ko defee incha allahu rabbi après mu jokkal leen ndimbal loolu kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ci teewaay bi ak waxtu wi ñu fi ñëw yàlla defal leen jàmm jërëjëf kon uh, numbe kaay